ay waay féexal sa xol ah original neexal bu te am original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo transfert local la ko moom di ci soñ ñu Sénégal yëpp ñu consommer ko sunu mbër yi ñu ngi dem di voyager xale yi ba pare am am plage am littoral am dune am parfois loo xam sax amul ci dëkku dëkku tubaab bi ba pare ñu am lekk cosaan yoo xam ni mën nga koo lekk mu sain mu wér nga xam ni yow sa digg doole nga nekk nga dem uti xam-xam bu bëre nga dem uti xam-xam bu bëre mbër mi ba gis ñaari mbër yu taxaw di xoolante rek kenn ki daanu mosuma fee gis loolu gisaguma ko fi donc loolu yëpp mën na mën naa am parce que nag fi lañ ko fekk te mbër yi dañuy soxla ku leen aar xëy na ci nit ñi leen di xool ak yu kenn xamul yooyu yëpp si la ba pare culturellement rafet na mu nag li xew ci keroog ci Ada Fass nga doon xale bu ndaw ñu nga gis yow li nga entraîné guy gi guy gi ñëpp xool ko xam ne guy gi ñu ñëwul du guy gi mañ xamoon lu war a ñëw paqueté ko même ci biir bëre bi Ada Fass gëm-gëm yooyu moo tax sax mu dem mi mais guy gi da ngay ñëw man leer na ma ni bu doon sama waaj bi da koy jàpp ci deux secondes takk ko daaneel ko mais boo mënul daan guy gi moomu ñëw guy gi bi mu paree ñëpp xamoon nañ ni damaa feebar damaa hospitalisé li ñuy wax te ko gëm ndax seetaan nañ guy gi démb ñëw a jël euh, pratiquement ay kankurang lu ne nga indi ko ci stade bi bëgg ñoo jommal je pense il faut mu jóg ci loolu xale la am na mbooloo am sare am na charisme gis nga duo ñu nee di dem yàllaa koy def mbër mën na fee def lu ne lu ëpp loolu gis nga mbër def na fi lu ëpp ñoom Diop de ay ñoom prince ñoom ñoom big euh, euh, big Diop mi mm-hmm. te dégguñu ko mm-hmm. mais tey jii xoolam mbooloo yi leen topp loolu yàllaa ko def mm-hmm. loolu nag da xam da nga a xam ni du ay sëriñ du ay xërëm Modou Lo mii danaan bëri di fër yi gàllaaj takk ngemb li man pour man loolu sax daf lay war a dérange mm. mais tey nga takk ko def le minimum li ci des nga def ko sa kër li ci des say waajur ñaanal la leneen li nag fondamentalement ñu xam ko moom mooy entraînement yu wóor nga jàng sport de combat ba pare di ànd ak ay combatant gis nga mbër moom tey jii taulier la ba pare mbër la mbër yi li ñu koy yokk mooy ca contact ba mm-hmm. waaye bu gisee kuy def ay kido na ko seeti bu déggee kuy karaté na ko seet gis nga Moustapha Gueye maa ngi def karaté dégg nga loolu xam nga Moustapha Gueye hmm. mbër loolu la loolu la rayoon mbër parce que dalaan côtoyé ay grands champions teel a xam ay technique moderne ba pare ñëw di ko appliqué ci biir lamb ci lamb ji prise Khadim Ndiaye loolu la ci prise Lac de Guiers 2 loolu dafa dafa dafa nekk ay xërëm donc nañu bàyyi am na loo xam ne diine ak sax suñ gis ci gis-gis ak yeneen dëkk yi sax dañuy dem ba mujj seexlu Sénégal nañu def nànk culturellement suuroo soow fecc toj ndaa yooyu yëpp rafet na waaye ba cee def deux heures de temps ni ñu di la xaar nga defee ni après bu mu la tuddee ne dañoo dagg am ñu toog fële di wax lu leen neex tegul fenn loolu amu ci benn discipline boo gisee coréens yi di ñu indil seen taekwondo. Mhm. ñuy fay di ko jàng. ñu ñu indil ñu karaté depuis avant indépendance mi ngi ci senegal indil ñu judo yooyu yëpp nekk presque ay sport olympique. Mhm. surtout taekwondo. mais c'est parce que dafa am discipline am ay règles yoo xam ne kenn kenn mënu koo tëb. Mhm. mais nag ñun mënuñoo ñëw dugg dugg ci pëccëxoo jaxasoo après nga ne non CNG CNG bu CNG amul am règlement yi du am làmb ji bu ñu paree nit ñi dañuy xeex di xeex ba fajar. maa ngi wut reliquat doo ko gis. mu nekk lu am solo Bib Diop. sa mhm. cee sa idole. Mhm. magam war a bëri. le 21. digganteem ak tafati Tine kan nga faral yow jour boobu. non man moom dëgg fa yàlla baala Gaye sama mbër la. Balla Gaye nga faral kon. Balla Gaye mbër la. Tapha Tine am na ay qualité yoo xamante ni ñu ngi koy xool si moom. Hmm. waaw kan moo ñoom ñaar ko man ah su fekkee Balla Gaye mi ñëwoon moog Boy Niang moom gars yi Tapha Tine la ñuy la wax moom man xaw ma ban Balla Gaye moo war a ñëw pour l'instant nii. Hmm. waaw ndax Balla Gaye moom chaque jour ak mbetteel tax. en tant que sport en tant que sportif. ba mu fi jëlee roi des arènes ñu ni yàqu woon na. bi mu ñëwee kenn daan ko jël roi bi Bombardier. Hmm. bi mu jàppee Gris Bordeaux daa bëreeg moom ba décision arbitre bi mu ñëwaatee jël Modou Lô gaa yëpp dañ ni Modou day jël revanche am benn face dafay def mu ñëw ndax loo ko daan ko. Mm-hmm. moo tax tey am na ci lu mu jugee moog Boy Niang xam na ni dafa bokk ci làmb. te bu waxee dëgg rek Balla tamit mooy làmb. Mhm. waaw kon tey xam naa ne am na nu mu war a. Balla Gaye mooy làmb wala Balla Gaye moo nekkoon làmb. non la nit ñi di wax Balla Gaye ne Balla <laughs> bu ñëwee géem bi ah, yëngu kay. waaw baa ngi yëngu bu bu baax. waaw ah, géem baa ngi yëngu. ñoom ñaar képp doole nga ah, man de instant yii bu may wax dooleem taxaatin laa. taxaatin nga ko jox si logique quoi. xaw ma nag bu ñu. te teewul Balla nga faral Ah, non man kër meer gaay muy loolu président combat Tapha Tine Balla Gaye waaw comme Tapha Tine mhm. mhm. parce que ñoom ñaar bëri woon nañu Balla yàlla may ko ndam mhm. ci diggante bi Balla Gaye dem xam nga ba ba ba ba ba nekk ci ay jafe-jafe parce que nekk ci ay jafe-jafe weesuwul ngay bëree ak ay nit ñooñu di la daan Tapha di bëree ak ñooñu di leen daan ndax boo xoolee ci diggante bi bëri na fi ak Eumeu seen Eumeu seen daan ko mu bëre fi ak Bombardier Bombardier daan mu bëre ak Boy Niang Boy Niang daan mhm. te ñett ñi ma la limal ñëpp ku ci nekk Tapha daf la daan moom mhm. la mujjee bëreel kon boo xoolee ci wàllum performance Tapha Tine ne muy au mhm. kon mbër la boo xamante te fi may waxee yow Tapha Tine mën nga wax ni ci làmb def na lépp Tapha Tine fi mu ne rek moo ko dese mooy couronne roi des kon tey yaakaar naa digganteem ak Balla moom xam na li ko ciy xaar mais mu daan Balla da koy may mu mën a bëreeg Modou Lo mhm. te yaakaar naa Bawol fi mu nekk nii boo xoolee booloo bi ñu booloo nekk ci ginnaawam rek mhm. ngay xam ne tey jii nii mhm. Tapha Tine mii kat fa mu jëm yaakaar naa ni waru ko ragal ndax tey mën naa la wax ne la am na ay nit yu doon jàppale Balla Gaye sax dellu nañu fi mu ne ñibbi nañ ca Tapha Tine ndax mooy seen bokk euh, euh, Balla Gaye aussi nekk benn mbër boo xamante ni li Bib Diop wax léegi dafa bokk ci làmb mhm. Balla saa buy bëree gis nga li muy def arène nationale bi mhm. da koy duy ba mu fees tel nekk mbër moo xamante ni Ndakaaroo ko bëgg mhm. man da Balla Gaye dama koy xoolee comme Moustapha Gueye ci ay jamono parce que mbër la xamante ni saa buy bëree lay doon muy ndaanaan ci bu jógee rek stade bu jógee stade ba pare day jaay combat signature day neex parce que mbër la boo xamante ni du tricher Balla buy day daan day bëre suy daanu day bëre muy mbër mu am jom di mbër moo xamante bi mu ñëwee ca làmb mooy mbër mi gën a tuuti ay at bu jël roi des arènes mm-hmm. ci âge de presque dix-huit ans ci la jël roi des arènes mm-hmm. nekk mbër boom ñi fi gën a të mooy ñoom Mohamed Ndaw Tyson ñoom Yaxya Diop Yékini ñoom Bombardier ñoom mën naa la wax ni la ñoo ñëpp da leen boole ci benn ngem mm-hmm. kon ku mel noonu tey su ko yàlla defalee mu am ay jafe-jafe jóge ci booy ñaar ñu ne bàyyi na mu dem retourné waat dem INSEP si entraîné te ko xool Balla état bi mu nga xam ni parewul pour daanu moo tax combat bi combat la doon ci Balla Gaye tafaatin aussi tamit ñu bëri jàpp nañ ni moo ëpp doole Balla Gaye la taxañ ko mais Balla aussi neexu la taxañ ndax du mbër mu ñuy diriger mhm. kon combat la daal boo xamante ni man li may wax mooy amateur yi nañ teel a ñëw tali mhm. seen billet mhm. ñëw seetaan ko que le mais daal ku ñëw di gis ambiance di gis bëre ndax ñaari mbër lañ yoo xam ne kenn du ki mu ngi noonu mais damaa bëgg balaa émission bay jeex tàggatoo waaw balaa ngay tàggatoo mais day ñëw ci Balla Gaye tafaatin rek waaw xam nga ñaari mbër yu toll fii ñu toll ku ci daan sa morom bu amateur yi yeewoo mën nañ koo commenter mën naa ne. Mm-hmm. parce que ku ne mën naa daan sa morom mën naa daan sa morom parce que fii ñu toll mm-hmm. nañ ko. Tafatine dernier combat am. Mm-hmm. Euh, xëy na Eumeu Sène mënoon na ko négocier. mënoon ci ay contexte lay. lay doxee. Euh, bu ñu bëree. Balla Gaye dafa am nu mu mënee. mooy résumé combat taxañ la. ndax am na puissance boobu am na explosivité ba mu mm-hmm. naan am pour ñëw taxañ dal kaw génn ci mu jeex noonu la defoon tafaatin mm-hmm. et je pense que su ko mënul defaat noonu mu ngi ci ay problème su ko mënul defaat noonu dafa war a taxaw négocier combat bi liir ko ndax enchaînement yi mu amoon il y a dix ans de cela mi ngi ci moom ba léegi ndax vivacité bi rapidité bi yooyu yëpp euh, day wàññeeku fukki at day wàññeeku fukki at tafaatin nag soo ko dugg nag waaw Tapha nag soo ko woowee ci combat bu ñu war a consommer. woo nga naar ci guuxam soo. waaw woo nga ko ci problème boo xam ni doo xam noo koy réglé. moo hmm. tax euh, combat bu équilibre la. combat boo xam ne ku ne dafa am loo moom. Balla première première minute yi ndax Tapha Tapha dafa am dafa am dafa am un peu ay ay ay retard. ci hmm. dugg ci combat. Hmm. te noonu la bindoo. ci caractère la ci personnalité am la. daf lay xaar daf lay absorber. mais mën na ci jël ay coups doog a réagir. Mhm. mais dans le fond bis bu amee ñu jàppante te Balla amul solution mën na fa am ay difficulté Balla bu mënee def ay ay enchaînement bëri ko ni mu bëree woon ak Tyson. Mhm. nga xam ni foofu bëriwul ay puusante ñoom ñaar. dafa enchaîné dafa dóor rek enchaîné waaw te voilà te te Balla. ndaanaan la. ndaanaan la mais dafa am tic ci dóor cest à xeexkat la mais du dóor hmm. am na am na tànku xeex. maanaam sukk jóg gëdd la liir gëdd la jóg waaw gauche boobu mu lay di ko miine ay waay féexal sab xol ah original neexal bu da am original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandi transfert local la ñun ñoo ko moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko